loolu xawul grave aussi lu toll ni viol ba entraîner meurtre. waaw loolu loolu moom dañuy bu fekkee viol daf ci am. esprit esprit en quelque sorte entre guillemets comme gars yi ñu waxee esprit sadique boobu bi commencé régner euh, bi commencé gagner les sénégalais depuis un moment. waaw esprit boobu moom ñun ñëpp la tiital képp kuy sénégalais tiit nga ci ndax sénégalais yi xamuñu woon loolu. suñu masaan gis ku rey nii sax affaire bi dafa ñuy jàpp mais léegi daf c'est lu yomb la daal lu facile la léegi lan mooy la cause état bi war na ci def gëstu psychologue yi war nañ jóg jéem a wax xool def ay étude là xool lan moo war a lool mais également pourquoi pas am na ñu koy wax ñu revenir faire revenir la peine de mort mën na nekk mën na nekk parce que ñun dañ ko doon appliquer mais gis nañ bi ko France aboli bi ko France supprimé en 1981 si lañ jóg ñun aussi mais également accu accusé wu ma leen ah mais mouvement yu mel ni waa waa amnistie dañ ci jouer un rôle fondamental ci ab abolition de la peine de mort ñun nous avons nos réalités amnistie ñooy ñan fan lañ bokk yow mënoon ni kii mooy amnistie xanaa rek am nañ benn représentant au niveau du Sénégal mu leen di waxal te partout dans le monde ils sont là-bas am na ay dëkk yoo xamante ne amnistie ñu ngi fa mais ñoom aboliruñu euh, pen de mort ku mel ni États-Unis pen de mort mi ngi fay euh, pour la peine de mort man je pour ñu indiwaat peine de mort bu fekkee état bi comme ni ma déggee sànq secrétaire général waxe ko ni moom mënuñu ko fi indiwaat mais ñu def donc une condamnation à perpétuité maanaam tey jii li tax defuñu condamnation à perpétuité lu tax tey nit ku rey nit quelque temps après ñu génn la problème bi nañ ko nañ ko wax mooy prison yi mënatul àttan détenu ya fa nekk. te kenn ñemewul tabax prison parce que nee nañu ko ku tabax prison yaa yaa ciy jiitu. te kenn voilà loolu aussi benn préjugé la. tey je pense que président bu bëggoon dimbali population bi su bëggoon vraiment def touche ci sécurité. war na mën dem jam ñaajo dagg fa benn prison bu rëy a rëy rëy ñaanaluñ ko mu dugg fa vraiment ñaanaluñ ko mu dugg fa mais bu fa defee prison bu rëy ñi nga xamante ne perpétuité lañ leen dóor ñu yóbbu leen foofu mais également li tax ñu mën a gën a alléger prison yi mooy gis nga détention systématique dafa war a jeex Sénégal détention systématique mooy ku ñu arrêté rek le temps que le juge d'instruction def enquête am moom dañu lay tëj am na ñu xeex la longue détention préventive mais ba léegi longue détention préventive moom mu ngi continuer donc ñu jéem a xool def ay moyens bu fekkente ni enquête bi nécessaire na vraiment ñu relâché la mais ñu bàyyi la le temps que le juge d'instruction def son travail bu fekkente ni c'est avéré que yow yaa ko def mais ñu jëlaat la indi la su fekkee defoo ko alhamdulilah moo gënoon ñu tëj la prison nga def fa 4 ans cinq ans ñu jugé la fekk defoo dara donc loolu vraiment état du Sénégal les autorités war nañ ci gën a xalaataat. ok comme ni nga ko waxee tout à l'heure aussi ñi nga xam ne dañ leen téye ay 5 ans defuñu dara après ñu génn waat leen ñooñu est-ce que euh, euh, loi bi am na lu mu prévoir pour ñooñu. loi euh, sénégalaise. amul ay wala yooyu amul lenn lu mu prévoir su ñoom. cest tey nit ki bu ñu ko tëjee 10 ans. enquête bi révélé ni moom deful dara dañ koy génne noonu purement et simplement te là man je pense que c'est une forme d'injustice su fekkee justice dafa ñëw kaso ñëw fi pour xeex injustice kaso boobu warul def injustice pour le contre les détenus donc longue détention préventive yi ça repa sa ressurgit ndax problème yi yëpp li tax ñuy gracier nit ñi à tout vent lu tax ñuy ñuy ñuy ñuy maanaam ku ñu war a tëj euh, euh, perpétuité defa la 10 ans wala 15 ans c'est parce que les prisons n'arrivent plus à contenir les prisonniers donc état du Sénégal injustice boobu nga soulever léegi daf ko war a réparer pour lan euh, naka la koy réparer c'est très simple le temps que le juge d'instruction def enquête am mën nañ la bàyyi nga am liberté conditionnelle wala liberté provisoire si est avéré que yow yaa def fay yi mais ñu jàppaat la tëj la ndax Sénégal kenn mënu fi rëcc. ok donc toujours par rapport ak euh, comment dire peine de mort tout euh, forum du justiciable di ci wax que ni sénégalais moo ragal de te pour moom euh, la meilleure solution mooy ñu andiwaat peine de mort est-ce que yow ci ci cadre boobu nga nooy surtout par rapport ak euh, aussi suñu culture bokkut ak yeneen culture yi aussi soo xoolee. non euh, ñun dañu jàpp ni Sénégal peine de mort mënu fi ñàkk. au bu fi amoon man gëm naa ni dee yi dina gën a wàññeeku ndax Sénégal dafa ragal am na si ñoo xamante ni vraiment bu ñu xalaatee ni bu ñu reyee nit ñu rey leen xëy na duñ ko def donc solution la mën nekk. mais encore une fois dama wax léegi ni la dafa am lu war a entourer peine de mort boobu. pour éviter les erreurs judiciaires. am war nag mais cas bi am nii nii nii nii Binta Camara ñu ku ab avoué kooku amatoo loo des ci àddina te du cas boobu kese bëri na fi te malheureusement quelque temps après plus de dix ans peut-être mën nañ ko mën nañu ko gracier muy aussi beneen problème la grâce présidentielle beneen problème la. parce que justice bi mën na ah, cas du Guinéen récemment. le cas du Guinéen tey justice bi rendre le pouvoir judiciaire rendre décision président mën na jël ni man gracier naa ko donc loolu c'est un autre problème boo mu te ni justice bi war nañ ko war ko xalaat donc man je propose une chose que ñu def réforme de la justice sénégalaise que ñu réformer la code pénal sénégalais gis nga réforme boobu dafa jot chaque 10 ans chaque quinze ans war nañu xoolaat suñu institution yi te si institution yooyu pouvoir judiciaire daf cee bokk il nous faut le maximum de magistrats pour éviter les longues détentions préventives chambre criminelle il faut chaque mois bu mënee nekk muy taxaw mais boo xoolee tey ji chambre criminelle dossier yi ñu nekk di jugé mooy ñi def crime ñu ngi ci 2014 entre temps ñaata nit ñoo fiy defaat ay crime nga arrêté leen tëj ñooñu quelque temps mën na am erreur judiciaire wala boog nga ni dama juum génne kooku si biti vraiment la justice sénégalaise jamono ji war nañ def assise sur justice sénégalaise. loolu aussi ma fàttali le le cas de Fatoumata euh, Matar Ba euh, bi ñuy assassiné woon Pikine ba boobu ba léegi déggaatuñu. problème wala cas boobu et pourtant elle était députée ñun ba léegi amuñu suite ci Fatoumata Matar Ba ñun nu sommes dans la banlieue fa la ñuy activé woo mais meurtre bu gën a sordide boobu gisuñu ko. mais également meurtre boobu mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko def de manière euh, parallèle ak meurtre Binta Camara parce que même chose la ay nit ñu leen di fréquenter la ay nit ñuy ñëw sa kër la donc nul n'est en sécurité dans ce pays là parce que ba sa biir kër sax mën nañ la fa fekk fat sa bakkan lenn mooy solution bi nañ indiwaat peine de mort wala bu ñu indiwul peine de mort aussi ñu def des condamnations à perpétuité te pour am condamnation à perpétuité il faut ñu am ay prison yu doy ndax bu prison yi doyul aussi boo bëggee perpétuité da ngay dem ba mujj gi ay chambre uh-huh. yoo xamante ni ay 1000 personnes ñoo fay dajaloo.